lu tax mu démissionné je pense que boo leen ko woowee dina ko leeral. mais yow yow nee nga c'est pas parce que Thierno Bocoum sa xarit la mu dem rek nga dem. Mhm. kon yow lan moo tax nga dem yan mooy sa raison lu mu la metti ba tax nga dem yow. voilà donc euh, euh, personnellement am na pincement de cœur bi may quitté foo xam ne sama kanam lañ ko sosee donc may préciser ne je suis membre fondateur du parti étudiant laa woon bi ñu koy créé bokkoon parti fidèle bu Yankhoba Diattara donc lépp sama kanam la xewee boo defee fukki at ak euh, parti boo xam ne. liggéey nga si nag liggéey boo xam ne mu ngi fi donc je pense que militant yëpp mën nañ ko seede nga jékki benn bis ñu pousse la si pousse la pour nga génn donc loolu du du du du neex. neexul ci xol personnellement bi Thierno Bocoum euh, démissionné parti bi la jafe-jafe yi commencé sama côté. Euh, peut-être li ñu li ñu daan ànd di liggéey wala sama xaritoo ak moom wala sama jege gi ma ko jege peut-être moo tax bu ñu demee ba ay responsable ay kilifa si parti bi di may demander à ce que je puisse prendre par rapport à la démission de Thierno Bocoum loolu je pense que c'est un manque de respect parce que je suis membre du secrétariat national amul benn secrétaire national bu ñu bu ñu wax ne euh, Thierno Bocoum démissionné na waxal lii wala bindal lii sa Facebook. wala wala kenn déggul la ci boppam wala. non du ma tudd tur te loolu xam naa du du du du jëfu Idrissa te du jikkoy Idrissa Seck li mais li ma mën a wax mooy mooy moom dañ ko see tudd parce que man maay secrétaire permanent bi maanaam boo koy seet bu fekkoon Euh, ci ci ci wàllu diina la ci kër sëriñ yi bëkk néeg la ñuy wax donc xam nga nit boo amatul confiance sa bëkk néeg bëkk néeg boobu normalement euh, waratu faa def dara fekkente dem nga ba wóolatoo ko Thierno Bocoum démissionné dégg naa wax bu nekk wax nañ ma oui pourquoi dégguñu la pourquoi waxuloo pour quoi joxewoo sa position et ça m'a poussé même à à un peu céder benn moment parce que j'ai j'ai fait un Euh, un, un, enregistrement dans les groupes WhatsApp, parce que le parti, il y a beaucoup de groupes WhatsApp du parti qui pour permettre aux militants de, de partager des informations et de discuter entre eux. Donc j'ai fait un, un enregistrement audio pour dire que Tierno Bokoum est parti pour des raisons qui lui sont propres nangul naa ko ko mais moi je reste militant et responsable dans le parti jusqu'à présent. Ah, loolu nga waxoon. loolu laa waxoon ñetti fan après nga jëm changer avis euh, dem. waaw ñetti fan